yaa xayu yaa xayuumu salli bi salaam ala la si jaa bi asanil kalaam ala la si jaa bi asanil kalaam salli wa sallim wal taqabbal sal kalaam mun na ala xaarisil xuroofi bima yafooxu zanna min maxroofi li naasi min xuroofi xaalid rabaa yaa man kafaa usaal xuruuri wa nubaa waliyu yaa raxmaanu yaa raxiimu yaa xayu wa yaa xayoomu yaa mukrimi yaa naajaaka abdukal xadiimu saa salaa musalliman ala musaxsil xulaa asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi rawatina bokki taalibe yi jotaat na nañu ndigal lu bàyyi koo ci xalif général de Mouride Serigne Cheikh Sidi Moukhtar Mbacke yàlla na fi yàgg te wér jaar ci Serigne Abo Baraka Mbacke xalifa Cheikh Mamadou faadal yàlla na fi yàgg te wér ñëw fii ci Touba Aliya gi nga xam ne moo doon toolub jumaa ji Serigne Fallou doon fi liggéeyal Serigne Touba yàlla jagleel ko Alhaji Baara Mbacke moom Serigne Fallilou mi nga xam ne moom la Cheikh Ahmadou Bamba tànn mu jëkk koo liggéeyal ci ay sëtam nu nekk ci waajtaayu bés bi ñu koy defal at mu jot. te ren jii mu war a doon ajjuma 15 mai fii ci Touba Aliya Serigne Moustapha mi nga xam ne moom la yàlla dogal mu jiite njaboot gi ànd ak rakam yëpp jël bës bu tedd boobu tudde ko way juram Serigne Cheikh Mbacke moom Serigne Abdoulahi borom dër bi loolu tax na Serigne Cheikh nangu cër bi yebal fi délégation bu am solo boo xam ne Serigne Cheikhouna mi Serigne Cheikhouna Lo mi war a wax ci seen kàddu dana leeral bu baax délégation boobu waaye nu xam ne itam mbooleem ñi nga xam ne ñoom la bokkal Serigne Falilou Mbacke bunti kër yi Serigne Fallou Mbacke yëpp. benn desul ñoom ñëpp ñëw nañu ànd ak moom bés bi ndax noonu la ñu ànde woon ak seen wajur wu tedd wa alhaaji baara mbàkke moom sëriñ falilu lool nag moo tax sëriñ moustapha jël ndigal li teg ko ci loxol ay jëwriñam sëriñ seex ndindi mbàkke rakkam ak alaaji fallu mbàkke galaskaltoom mi nga xam ne yéeneem moo di liggéeyal sëriñ fallu ci kër sëriñ tubaa ànd koog rakkam yépp moo tax nag ñu tànn délégation boo xam ne ñoo ñuy xamal wàccaayu bés bi ak programme bi incha allahu taala danañ jox kàddu gi Serigne Cheikh Ndindi Mbacke moom Serigne Alhaji Baara mu wax ci turu Serigne Moustapha moom Alhaji Baara mi nga xam ne moo jiite njaboot gi bu noppee danañu jox kàddu gi délégation yi bàyyi ko Daaru Rahman Serigne Cheikhouna Lo mooy wax ci seen kàddu bu noppee danañu jox Serigne Modou Ndiaye chef de village su Touba Tawféex bu noppee ñu jox Serigne Moustapha Diatara bu noppee ñu jox Serigne Khadim Gueye mu wax ci turu donga yi bu noppee ñu jox kaddu gi Alhaji Fallou Ndiaye May Guèye mi nga xam ne moom itam mooy wax ci turu commune bi bu noppee nag ñu jox ki nga xam ne mooy yore organisation màggal gi di Serigne galas Mbacke Kaltoom moom itam mu wax ci turu liggéey bi nga xam ne moom lañ ko dénk kon nun ñëpp nu ànd déglu Serigne Cheikh Ndindi. ci ndigalal Serigne mustapha nee na naa wax ci turu rakkam yu baax yëpp ñoom sëñ Cheikhouna ak sëñ Gallas Adjima Moussa mi ak seeni rakk. ñu ne bis bi ñuy defal Cheikh Mouhamadou Lamine ñu ngi koy def ci ndigalal Serigne Sidil Muxtaar mi nga xam ne moo fi nekkal Serigne Touba ak ci ndigalal sëriñ Abo mi fi nekkal Serigne Fallilu di ñaan ñu yàgg fi te wér eh, niñ ko daan defee rek sëñ Moustapha nee na dara soppikoo ci nañ ko daan defee lañ koy defee ñam ci daan woo la ciy woo mm-hmm. ndax nee na képp koo xamante ne soqikoo na ci maaram Mbàkke ak num ca bokke maam maaram woote bi e, bokk nga ca ku ca bokk rek ñu ngi lay woo ndax daf na waxoon ne nañu taamim te bu ñu taxsiis ndax boo boo duggee ci tudd tur da bàyyi kenn mm-hmm. te te moom ñëpp la woo moo tax mu ne nan ne li ko dale ci maam maaram ku ca bokk rek ñu ngi koy woo muy bokk sëriñ bu soobe ak ahlum bu soobe yëpp ku ca bokk ñu ngi lay woo ndax ñi niy wooteel muy Cheikh Mouhamadul Amin ak Cheikh Mouhamadul Fadil dafa am ñu demee ci mbokki mbusoobe yi moo tax mu jagle leen tudd bi si fi xaas sa yi nga xamante ne ñoo ñooy bokki sëriñ Touba yëpp it eh, li ko dale ci waa kër maam Thierno eh, waa kër maam Mor Jaara ba ci lékkul ni ñëpp maam Cheikh Anta euh, euh, sëriñ Afiya ba ci sëñ sàmba ñu bokki sëriñ bi yëpp nga xamante ne ñoom la ñuy wax banu balla nee na bàyyiwu ca kenn ku ca bokk rek euh, woote bi yaa ngi ci biir képp koo xamante ne ci taalibe sëriñ Tuubaa yi yi seexe ci loxoy sëriñ Tuubaa yëpp it nee na la ko dala ci maam Cheikh Ibrahima Fall ba ci ki sëñ bi mujj a seexal ñëpp a ngi ci biir yi Serigne Touba yi itam fu fi dongab Serigne Touba nekk yaa ngi ci biir woote bi ndax ki ñuy defal bis bi di suñ Serigne mi Cheikh Mouhamadou Lamine nga xam ne ñun mooy suñu nibraas mooy suñu buusala ci moom la ñuy xool suñu orientation ci moom lañ koy jël lim daan wax mooy donga yi rek a fi ne sëriñ Touba donga yi rek la am kon sëñ Moussa nee na dong woote bi donga yee ci jiitu ci lay dale ci lay ci lay mujje ndax mooy alali sëñ Touba Euh, bu ca bàyyi ko sëriñ bi nee na itam ku ne xamoon na Cheikh Mouhamadou Lamine ni mu yaatale woon fii ñëpp a ko fi daan fekk si ci mboolem turuq suufiye yi ñi mbokkal lislaam bi yëpp kon képp ku ku ku ku mu bokkaloon lislaam rek te jote ko Cheikh Mouhamadou Lamine sëñ Moustapha nee na mi ngi lay woo ci bisam boobu Cheikh Mouhamadou Lamine nag dafa yoroon doxinu sëñ Fàllu ci laa ak ci yaatal te sëñ Fall yor doxinu Serigne Touba te sëriñ Touba ba mu demee bay ñaan newut jullit ñi newut murit yi irham xam al wara la waxoon suñ borom jë yërëmal bindeef yëpp rek kon ko ci génne yaasis génne ko waaye suñ Touba génnewut kenn moo tax Serigne Moussa nee na woote bi daj na ñëpp même ñu di jullit ñu ngi leen di woo ndax Cheikh Mouhamad Lamine bi mu fi nekkee ak bi mu mataleeb liggéey kilifa gu ci diine ju nekk ñëw na fi ziar si ko ci nekkam bi mu làqoon ñëw ni fii ci allié ziar si ko ci ci ci ci ci fàddoom kon ñooñee woote bi làmb na leen comme moom ni mu leen làmba woon ci jaxasoo àdduna ndax sëñ Tuubaa moo wax ne lakin mudaaraatuhum xad nu dibat <laughs> ñàkk bokk diine du tee nag ñuy seq maslab àdduna ci tënk foofu la sëñ bi ne woon naa fi yem wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Sëriñ Moustapha ñu ngi. ñëw di la indil nu sa way sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke sëriñ Cheikh Darou Rahman di jël nuyoo boobu di ko teg ci sa loxo nee na nga nuyul ko mbokkam mu baax mi kilifaam gi muy sëriñ Abul Baraka sëriñ Cheikh nag bi may ñëw boole na ma ak ci njaboot gi sëriñ Abo Mbacke sëriñ Mbacke Madina ak sëriñ Cheikh Abdoulou sëriñ Cheikh nee na. mi ngi am mbégte lool ak yëg-yëg boo xam ne bu sori la ci moom ngir bis bi daf koo fàttali lu bari ca magam ja kilifaam gu baax ga muy eh, Cheikh Mamadou Lamine Baara xaadimu rasul eh, nee na li ci gën a dalal xelam nag mooy li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne nit ki buñ ko noppee gis ci kaw suuf léppam dafay dog ba mu des ñett ñett yooyu ba ko ci gën a ñor rek te mu làmb jataay bi nee na mooy njaboot goo xam ne dañuy taxaw di ñaanal ka fi bàyyi ko nee na loolee nee na bu ñëpp taxawoon di ko ñaanal te sëriñ la Lamine Baara ñëpp ngi koy ñaanal waaye nee na bu ngeen ko ca tànnee muy seen wayjur nee na loola dal na xelam sedd na itam xolam am na mbégte moo xam ne daal nee na ngir mu feeñal ko dana jafe lool waaye lam ci yéeg moom seedeel na ko suñu boroom di leen ci ñaanal taxawaay bi ngeen ci am ngeen yàgg ko taxaw yàgg koo ñaanal te képp ku fi indi itte ku nekk yàlla faj aajoom ci barkeb kilifa gu tedd gu baax gii muy fukki fan ak juróom ci weeru me wii di ajjuma bu ñu ne suba la euh, kazu rajab mi ngi ci woo ñépp ndax ku ñëw da ci barkeelu ñu jàng ay xasida jàng alquran jàng gépp ñaan goo xam ne gu ñuy ñaanal ku fi nekk la ak ku fi nekkut nee na loola mi ngi koy rafetlu di ñaan ñu àgg ci ak jàmm e, romb ko ak jàmm jeexal ko it ci jàmm asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ki nga xam ne nag tey jii mooy Cheikh Mouhamadul Lamine yal na yàlla dolli ko leer mu doonoon jëmm joo xam ne e, li ñu gën a xam ci moom. mooy nit la woon koo xam ne bari woon na ay jikko yu am solo waaye bi ci jëkk mooy asajaa ñëpp xam nañ di jàmbaroon yoo xam ne lépp loo xam ne lu ñu war a def la bu jotee dina ko def ci na nga xam ne na la ko war a defee ñëpp xam nañ ne itam kaana insaanan mutawaadian nit la woon koo xam ne it li muy rëy rëy ak li muy màgg màgg ku suufe woon la ba tolloog ñëpp ba kenn ku nekk mën naa wax ak yow nekkoon na it nit koo xam ne it ku fonkoon doomu aadama la rawatina nag ñi nga xam ne ñooy taalibi sëñ Tuubaa yi ni ko sëñ Cheikh Ndindi waxee léegi xam ngeen ne ay waxam li ci ëpp saa bu mosaan wax rek kim ci ñi ngi ciy jiital mooy lu fi nekk rek yéen a yéen taalib yi lu fi nekk rek yéen taalib yéen a fi def loolu ay waxam yëpp saa su waxee rek dina wax loolu te loolu it mooy jikkoom mooy it aw doxinam moom ci jëm boppam mu doon loo xam ne itam bu bisam dikkee dañuy fàttaliku ay jikko bu bisam dikkee dañuy fàttaliku aw melo mu doon koo xam ne it sunu borom subhaanahu wa taala jox na ko ay cër ndax cër mun ta weesu doon xalifa Cheikh Ahmadou Bamba boobu cër kenn mun ko weesu te loolu itam bi mu ko yoree itam mu nekk ci yori ko yorinu rafet woo xamante ne dajale mbooloo mi dajale jaboot gi ñëpp kenn ku ci nekk ñeme ko ba nga xam ne egg na foo xam ne alaj baare kenn xamul ku mu xeeb amul benn doomu aadama boo xam ne xeeb na la doomu aadama yëpp ñoo yemoon ci kanamam kenn ku ne la mu yéene doomi boppam la la yéene loolu ku ne rek xam na ko ci moom kon bisam bu ñëwee bisub taalibi yëpp la bisub alaaji baara moom bu ñëwee bisub jullit yëpp la waaye rawatina nag taalibi sëñ Tuubaa yi ndax kat li daan yëkkati di ko di ko wax ci ñoom loole mooy li nga xamante ne mooy wane ne taalibe yi moom ñoom la faraloon taalibe yi ñoom la féetaloon kon képp kuy ab taalibe bis bii sa bisa képp kuy mbokk bis bii sa bisa képp koo xamante ne ab julit nga ni ko sëñ Cheikh waxee sànq te moo di ñi nga xam ne bokkuñ ci yoon wi sax ñoo gënoon a saf alaaji jëm ci seen bopp muy sunu bokk yi nga xam ne ñoo nekk ci yeneen tarixa yaak yëpp ak ñi nekkutoon sax ci diine lislaam ñu dafa xaritoo woon ak ñoom ndax dégg gum dégg ak xam gu mu xam ne doomu aadama ñëpp ñoo ñoom lañ war a jox ciir ñoom lañ ñoom lañu war a ormal kon nag kon bu bisam ñëwee bisub ñëpp la ñu ngi ci woo ñëpp di sant sëriñ Moustapha mi nga xam ne moo jiite njaboot gi di ko ñaanal yàlla subhaanahu wa taala mu yàgg koo jiite eh, di ñaanal njaboot gi gépp itam ñoom itam yoon woowee alaaji bëggoon rek te nga xam ne ci la tegoon tànkam ñoom ñëpp yàlla leen yàlla may dimbalal leen yombalal leen bañ mën caa teg seen tànk bi barakati xaadima rasul bi barakati cheikh mahamadul fadil asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu barka cheikhul xadim barka sëñ fàll mbooloo mi ñu ngi leen di nuyu ci turu sëriñ Moustapha Alaaji Baara moom sëriñ Fallou euh, moo nu jox kàddu nu war a wax ci bis bi nga xam ne bisub Cheikh Mamadou Lamine la te Cheikh Mamadou Lamine moom wax ci du yomb ndax liñ ci xam bariwut waaye nag am na luñ ci mën a wax mooy nit la woon koo xam ni ku bari yërmaane la nit la woon koo xam ne kii bëggut ku néewal doole kenn xamewu ci woon taalibeem ak taalib kenn nee na ñëpp taalibi sëñ Tuubaa kon ñëpp lay defal intervention kon kooku mooy borom intervention yu bari ya yoo xam ni lu ci sëñ fallu defoon def na fa lu ko raw te it dara taxut woon mu koy def lu may jëmmi sëñ fallu ju bëgg gum ko bëggoon di ko roy ba doublé ko ca la mu doon def kon loole moo doon jikkoy sëñ Mamadou Lamine Ba kon nag da daan leble ñu bëree bëri bëri waaye nag li ñuy ëpp da leen a lebal kon nag ku mos a lebal te nga xam ne alaaji lebal na la bëgg naa ñu ngi lay ñaan sëñ Moussa di la ñaan ngeen ñëw ci bis bii santale ko alaaji baara ndax teew si ci bis bi rek mooy li ko gënal lépp soxlawut lenn ni lenn ndax lu lu nekk ci alaaj alaaji baara sëñ Fallu defal na ko ko waaye nag ñëw fii saafonteeg alaaji baara mu xam ne ña doon sëq ak alaaji baara ñëw nañ fii ngir moom mu gis leen teg leen bët loolu rek ko ci ñor leneen ñoru ko ci kon nag mbooleem koo xam ne alaaji baara lebaloon na la wala nga lebal mu lebal la nga bëgg koo fay bor bis baa ngi noonu ci sunu kanam kon na ñëpp ñëw woo nañ ñëpp maa ngi woon ak sama bokk chef du village yëpp kon nag bokk chef du village bu ma ko waxee bu ma nee euh, Serigne Laat Jaxate chef du village Touba Mosquée kon bàyyiwuma kenn woo naa ñëpp na ñëpp ñëw ñu siyaare bis bi jàng fi alxuraan jàng fi xasida jëfandiku ci benn yi ñaanal Cheikh Mamadou Lamine Baara yàlla defal ko li mu bëgg ndax moom bisam na mu ko waxee woon rek mosuma bëgg bis soxla moo bis sama bis mooy bisub sëriñ fallu bisub sëriñ fallu nag ku ñu suba la ko soxla nga dem ca wàcc nga asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu ci ndigalu sëñ Moustapha alaaji baara Mbàkke man xaadim Guèye mu alaaji baara maa ngi woo sama mbokk taalibe yëpp ci bisu sëñ bii nga xam ni amuñu lu dut moom ñu ko fas yéene koo def ci àjjuma ci fukki fan ak juróom ci weer wi ñu nekk ma di ci ñaan sama mbokk taalibe yi suñu xarit yi ak suñu dëkkandoo yi nekk dakaar ak mboolem koo xamante ni sëñ bi amoon na ak yow wóllëre ñu ngi la ciy woo ndax sëñ bi kat kenn la woon ci ñun te daal li comme li sëñ Jatara wax nii rek taalibe rek a fi nekk ba tax na ñun tamit comme ñun ñoo ñoo des ci ginnaawam fii ñu fas yéene di ko ñaanal te ñu bëggoon daal képp koo xamante ni taalibe la nga ñëw ci bis bi ñaanal ko ñu ngi sant ñëpp di sant bu baax. di ñaanal bi yàlla na defal ko jàmm fa mu nekk njabootam gi nekk fii yàlla yàlla teg loxoom ci ñoom asalaamualeykum wa rahmatullah taala wa barakaatu auzu billahi min asheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara ci bis bu tedd bi di leen nuyu ci turu sëriñ Sidi Mokhtar Mbacke xalif général di Mouride di ñaan yàlla na ko yàlla yàggal ci wéral ko di leen nuyu ci turu sëriñ Abo Mbacke xalifab sëriñ Fallou ak mboolem njabootu sëriñ Fallou gépp di leen nuyu ci turu sëriñ Moustapha moom Cheikh Mahmoudou Lamine Baara mi nga xam ne moo toog jataayu Cheikh Mahmoudou Lamine ci jiite bis bi ah xam naa ni ñi jiitu sax li ñu war a wax lépp waxees na ko daf ni ne mbir moom boo ci waree wax rek wax ci waaye luñ ciy wax amatu ji bis la muy woote bis boo xam ne nii bisub Cheikh Mahmoudou Lamine la. ñu koy wooyee nag ci turu ki nga xam ne tey moo fi nekkal Serigne Fallou muy Serigne Abo moom Cheikh Modou Fadal jaaw ci jëriñam ji di Cheikh Mamadou Bachir jaar ci Cheikh Abdoul Fatah mi nga xam ne mooy porte parole kër gi ak njabootu Serigne Fallou gépp ñu wax ne bis bii seen bisa seen bisub maga seen bisub lépp ñu woo ci ñëpp nag ci ndigalul sëriñ la seen doom sëriñ Moustapha ñu jox ko ndigal ngir mu woote bis bii di ajjuma yamook fukki fan ak juróom ci weer wi ngir ñu màggal ci Serigne Mouhamadou Lamine Baara jàng ci alxuraan jàng ci xasaayit bu bët setee di gaaw ba ñu màggal bis bu tedd bi mu Cheikh Mouhamadou Fadal mu ne nag mu ngi woo ñëpp ñoom joxe nañu ndigal di woo ñëpp ak taalibe yeeg xarit yeeg am di jàmm yi kenn ku ci nekk nag am nga loo seqoon ak alaaji baara yaa ko xam sa mbiri boppa bis bi mi ngi ñëw soo ci loo ci man rek ci bis bi ci feeñal ci yéene ne kenn mënu koo fay waa fay waaye na kenn ku ne am nga fee man a feeñal sa yéene ci ki nga xam ne defaloon na lu baax kon nag ñi ngi woo ñëpp di xam ne bis la boo xam ne bisub taalibi yi la bisub jullit yi la bisub waa diine yëpp lislaam bépp la ndax alaaji moom lislaam bi la fi nekkaloon nekkalu fi woon ñi dafay nekkaloon ñëpp muy tariqa yi yëpp turuq yi nekk Sénégal yëpp kon nag ñi ngi woo ñëpp ci turu Serigne Abo turu Serigne Mouhamadou Serigne Bachir ak Cheikh Abdou Fatah mi jëwriñ ji ngir ñoom mbir mii bu amee ci seen taxawaay la ci seen kilif pastéef la am seen ndigal la amee moo tax sëñ Moustapha sañ a woote bis bi ñu ngi ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan ñi de ñëw ci bisimilah rahmaani rahim dellu ci alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaam asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu Cheikh Mamadou Moustapha ñi ngi lay siyaara di leen nuyu di siyaare waa kër Cheikh Mamadou Amine gépp ci njiitul sëriñ Cheikh Thiolle moom moom sëriñ Abdou Karim ci njiitul Baye Ndam mi jiite ahfaad Cheikh Mamadou Fadel ñooy woo mboolem afaat di setu Cheikh Maodo Fadal di góor di jigéen ci suñu bisu waajur bi di suñu xarit Cheikh Maodo Amine euh, Serigne Cheikh ak Baye dañoo wax ne bis bu la euh, la 14 di alxames bu ñu defee suñu conférence bi ñuy def ko Cheikh Fadal ba ci suba ga ñun ñëpp nañu àndandoo ñëw yendu si Aliya defal ak ñaan suñu waajur wa suñu xarit ba Cheikh Maodo Amine ndax jënn jëmm la woon ci ñun ku baax la woon it ci ñun maa ngi fàttaliku ci ak yaatoom ak yaatalam. benn bis fekk naa ko mu toog yor potum ndox nii di waaj a naan ndeysaan yàlla dogal ma egsi mu ñëw fab loxo bi mu teg ndox mi fab loxo bi teg ca ma ñëw nuyu ko nuyoole ko ñi ma àndaloon ñëpp ne ko mbakke naka coon yi dafa mel ne xaw naa bari lool da war léeg nga dem allié wala ndindi xaw a dallu tuuti mu ne mukk mukk mukk xaadim du ma làqatu mukk fii laay toog donte damay toog di nelawit fii laay toog kooku mooy Cheikh Mamadou Lamine bisam ñëw na ñun ñëpp nañ waaj ngir delloo ko njugal asalaamaaleykum wa rahmatullah ñooy nuyu ñëpp nuyu mbokki jullit yi mbokki mbokki taalibe yi euh, ñun nag ren man euh, maay wax ci euh, turu set Serigne Alaaji Baara yi ren nag ñoo ngi ko tuddee Serigne Cheikh Darou Rahman sëñ Alaaji Baara nag wax dëgg yàlla lu ko waaye defal ñun la ko defal kon bisam wax dëgg yàlla waruñu cee kenn waruñu cee jiitu ba tax na nag ñun ñoo ngi def le 15 mai ci saan bu ñëpp la ba noppi nag ni ñëpp dem ci baas ba ndax lépp Serigne Touba la di ci woo ñëpp nag bu soobee salaamaaleykum wa rahmatulah. salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. mbokku jullit yi mbokku taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu ci turu Serigne Moustapha moom Cheikh Abdoul Lamine mu jaarale ndigalam ci Serigne Cheikh Ndindi mu jaar ci sunu kaddu jëm ci mbokku jullit yi ak mbokku taalibe yi jiitu ci kaddu yi mooy bis nga xam ne amuñu lu dul moom di ko waajal muy bisu fàttaliku Cheikh Abdoul Lamine moom Cheikh Abdoul Fadal ak di ko ci ñaanal. sëriñ bi nee na mi ngi soññi njaboot gi ci njàngum alquran mi nga xamante ni sasoo woon na ko te bëgg kenn ku ne sasoo ko ngir nga nekk ci tan wut ñu ci nekk ngir jàngulu ay kaamil mu jëm ci Cheikh Mouhamadou Lamine ngir yàlla dolli ko ay leer di ko sàkku ci bépp kilifa diine bu nekk ci réew mi rawatina bépp daaree alxuraan boo mi ngi ci réew mi ñu ngi sàkku ci yow njàngum alquran salaatu ala nabi xasida Sëriñ Tuubaa lu ci waay mën defal ñu ko addee Cheikh Ahmadou Lamine ndax loolu mooy li ëpp solo ci jëmm ji fi nekkul te ñu koy fàttaliku te di ko ñaanal. bu loolu it jàllee ñu ngi sant mbokk yi nga xamante ni yëpp teew nañ fi ci kër njabootuk sëriñ Touba gi waaye rawatina kër njabootuk sëriñ Falilou gi li tàmbalee ci kër Cheikh Abdoul Karim moom Cheikh Abdoul moom Cheikh Abdoul faadal ba ci kër gi mujj ci kër sëriñ Falilou kenn ku ci ne sa njaboot bàyyi na yitteem. dikk teew ci bis bi ngir ànd ak nun woote bi nuy woote te di ko woo julliti yàlla yi te di ko woo jaami yàlla yi te di ko woo taalibey Serigne Touba yi kan lañ koy wooteel Cheikh Modou lemin mi nga xamante ni yittey bokk yi ay yitteema woon yittey jullit yi ay yitteema woon waaye yittey képp ku di taalibe Serigne Bara yittew woon na sa yitte kon moom moom yi la ñuy fàttaliku te di ko ñaanal te bëgg koo ànd ak jullit yëpp ci ndigalal Serigne bi di ko yëgal président la République Macky Sall Euh, di ko yëgal bis bi ngir daraja ji ko yàlla jox ak wàccuwaayam ci jiite réew mi yore ko waaye bokk gi mu bokk ci njaboot gi bokk ci njabootu Cheikh Ahmadou Lamine cër yooyu ko ci yàlla jox yépp ñu ngi ko ci yëgal te di ko ci soññ ci taxawaay yu rafet yi nga xamante ni daan na ko ci taxawal daan na ko ci taxawe ak ñi mu yilif ñëpp ak premier ministre Mouhamadou Boun Abdallah Dionne ak membre du gouvernement bi yépp di ko yëgal soxna Aminata Tall mi nga xamante mooy présidente conseil économique social et environnemental ak président Moustapha Niass di président assemblée nationale bu Sénégal te yàlla dogal ñu bokk ca ñuy yëngu ca barab boobee. di ko yëgalit euh, kenn koo xamante ni kii wëllëre ci kër gi muy Abdoulaye Daouda jàll di ministre de l'intérieur mi nga xam ne moo yore ministre de l'intérieur bu Sénégal. kon ñu ngi koy yëgalit bépp kilifa parti boo xamante ni bii yaa ngi ci réew mii ci Sénégal ak foofi nekk ak foofi bokki muy góor muy jigéen muy mag ak muy ndaw ci jote boo jote woon ak Cheikh Amadou Lamine ñoo ngi lay fàttali bisub kookee nga jotee joteeloon ca la ngeen seqoon ci aw yiw di la fàttali bis bi nga xam ne njabootam gi koy dundal amal nga ak ñoom loo seq ak ñoom ñoo ngi la ciy woo te di la ko yëgal bis bi kañ la muy fukki fan ak juróom ci weeru mai wi di dugg di la 15 mai ajjuma ñu fas yéene dellusiwaat fii ci Aliya ngir feddliwaat li nga xamante ni moo doxoon suñu diggante ak sëriñ bi te ñaan lan ko ameel ñaan lan ko desel ak sàmm kóllëre yi nga xam ne façon na ko moom ak ñii dund te ñu nit ñu war fee nekk di ko dundal ci turu sëriñ Moustapha di fàttali it ne alxames ci jiitu bis bi sëriñ Moustapha mi ngi soññ njabootug sëriñ Baara gépp ak taalibe yi bépp taalibe bu ajoo ci kër gi ak koo ajoo ci kër gi ak ku la yilif bu tàkkusaane ñu bokk daje fii ci Aliya ndax dafa am conférence boo xam sëdd dañ ko daan baaxoo def ren ñu jël loolee lépp def ko njàngum alxuraan moo xamante ni mii sëriñ Moustapha dana teew jataay ba ci alxames ji ci tàkkusaan ngir bu ñu jàngee alxuraan ji ba pare ñu jàng fa xadmu bi ngir ñaanal dolliwaat ay ñaan sëriñ Baara waaye rawatina njabootug boppam gi nga xamante ni ñun ak ñoom ñooyam ci sëriñ bi te yàlla dogal tey ñu wuute jataay yi. tàmbalee ko ci sëriñ xaadim mbàkke mi nga xamante ni moo ci jiitu woon tey góor ak soxna maam awa mbàkke mi nga xamante nii moo ci jiitu woon tey jigéen ak soxna aji fat lay mi nu dëdd bi yàggul di suñu way jur ak képp ko xam ne bokkaloon na ak moom daara ji di liggéeyal Cheikh Amadou Lamine ñu dolliwaat leen ay ñaan ngir yàlla dolli leen leer fa ñu nekk di fàttaliwaat it bisit bi euh, kenn koo xamante ni kii naam njabootug Serigne Touba gépp ñu ngi leen koy soññ ni ko Serigne Cheikh waxee woon ci njëlbeen ga waaye Serigne Bassirou moom Cheikh Abdoul Khader mi nga xamante ni taxawaayam ci kër Cheikh Abdoul Léb taxawaay ci digganteem ak Serigne Baara bi fa nekkee ku ne xam na ko waaye taxawaayam ci yitteem ak safoo kër Serigne Baara euh, ñu ngi koy fàttali bis bi fàttali ndax bis bi bu mosaan ñëw moom njaboot gi ñoo koy bokk yendu fii lay yendu ci kër Serigne Moustapha guddi lay jóge àlliya kon ñoo ngi koy fàttali bis bi bisam la ni mu nekk bisu njaboot gi la nekk bisam ñoo ngi koy fàttali di ko fàttali jullit yëpp. soññit suñu bokk yi nga xam ne bis bi li tax Serigne Moustapha jël ko dara jaale ko Serigne Cheikh moom Serigne Abdul Borom dër bi euh, kóllëre goo bokk goo xamante gi am na ko ak Serigne bi ak kóllëre goo xamante gi amoon na ko ak sëriñ bi te daan ko dundal te daan ko rafetal tax na Serigne Moustapha naam bis bi dañ ko daan jël di ko tuddee. kilifaam yi nga xam ne làqu nañ ne sëriñ bi di leen ci fàttaliku di leen ñaanal ren mu ne day jël bis bi lépp jagleel ko sëriñ Cheikh moom sëriñ Abdou Mbacke moom euh, Daaru Rahman ngir delloo ko kóllëre gi nga xamante ni ak bokk gi seqoon na ko ak sëriñ bi kon daanaka sëriñ Cheikhouna Lo mi waxoon ci kaddu googu man la waxaloon ci kër sëriñ Baara kaddu yi may waxit ci Daaru Rahman laa koy waxe kon ñoo ngi soññi sunu bokk yi nga xam ne ñoo nekk foofu yëpp tey xam ne bis bi lépp seen bis la cër bi nga xamante ni Serigne Cheikh sekkoon na ko ak Serigne Baara la Serigne Moustapha di dundalaat bis boobee dundal kóllëre googee ak di ko fàttali moo waral mu jël taxawaayu bis yëpp dara jaale ko Serigne Cheikh moom Serigne Abdoulahi borom dër bi. bokk yu kon bés baa eh, xam ngeen ne Alhaji Baara yàllaa ko yaatal te moom itam mu nekkoon ku yaatal loolu moo tax njaboot gi tàllal ñëpp loxo di woo ñëpp. incha allahu taala ajjuma 15 mai fii ci Touba Aliya ngir fàttaliku Cheikh Mouhamadou Lamine noo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan ko fi teew yàlla faj aajo ci barke borom Touba wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu tihi man yasha wallahu dul fadlil azim sadaqallahul azim